mbokk dal leen jàmm ginnaaw bañ leen nuyoo di am mbégte saa su fii ci baatu xol bi Dakar Live TV seen taxaw seetlu ñëwati na ginnaaw bañ defee tuuti net li gën fës ñu indi leen ko yéen ami internet Dakar Live dañ koy tàmbalee ak ki nga xam ne mooy Fambaye Mbow nekk as ndaw ju jigéen dëkk foofee ca Dagana ay atam toll ci 25 ans waaye nag biy pesé plus de 300 kilos mënul dem mënul dikk mu nekk mbir mu méttee métti ginnaaw Balago moom génn na indi ay leeral foofee ca Dakar Buzz di xamle ne Fambaye Mbow Wally Balago Seck jot na leen woo di leen expliquer ne leen moom dina jël en charge ki nga xam ne mooy Fambaye Mbow dimbale ko te yàlla tax mu nekk nag loo xam ne sénégalais yëpp apprécié nañ ko mu nekk geste noble waaye mu def geste patriote ñun tamit ñëpp di ko remercier ndax tamit lii mooy Sénégal kenn ku nekk rek bu amee war nga mën a dimbale sa morom ne moo nekk mun nañ ne ay jolore yu baax parce que du tey mu ne jàppal nañ ki nga xam ne mooy Fambaye Mbow tax tamit lii dafa baax ci bu ñu jógee ci li nga xam ne nag mooy Fambaye Mbow dañuy waxtaanee ak ki nga xam ne mooy euh, Serigne Mahfous Mbacké Serigne Mahfous Mbacké tamit nekk doom ci Serigne Modou Kara moom gis nañ ne waa VIP people wala ki nga xam ne sax mooy moo get dafa dugaloon ci story Instagram euh, benn vidéo boo xam ne ñoom ñaar dañ ci jotoon di ci waxtaan moo naan ki nga xam ne mooy Serigne Mahfous yow kat triant lu tax nga lekk sama xalaas ak li nga waxoon yëpp defoo ko lekk sama xaalis nii waaye foogoon nga ne di rëcc doo rëcc mu nekk na mbir moo xam ne métti na ñenn ci internet waaye gis nañ tamit ki nga xam ne moo nekk ci Adamo ak di xam ne ne moom daf noonu ñaanal Mo Gates depuis la vidéo boobu noonu Mo Gates waxoon ko na ko na ko ñaanal euh, pour mu mun a am accès si benn ndaw mun ko takk waaye tamit ndaw soosu mun ko jox xaalis ginnaaw 2019 moom tam mu joxoon ko benn xaalis mu waroon ko saraxal fii nag Sénégal moom ginnaaw xaalis boobu ba ko jotee nag comme amoon na fii xaalisam mu wax ñenn ci ay taalibeem nañ ko defal sarax boobu noonu moo get génn ne toppal mbir moomu noonu ndax nag dëgg la waaye lu ci am ñu indi information bi yéen ami internet ngeen xam nan la ak naka la bu ñu jógee nag ci kaaw ki xam ne mooy sëñ Mahfous ak ki xam ne mooy Moguette ak ki nga ak ginnaaw yenn accusation yi nga xam ne teg nañ ko ci ndoddam neen moom nag dañ ko accusé li nga xam ne mooy viol waaye ne dañ ne moo nekk gendarmerie bu Colobane benn ndig jigéen bu nekk moom moo def loolu porté plainte ki nga xam ne moo nekk Ousmane Sonko moom nag ñu ne salle de salle de ngi foofee fi xam ne moo nekk Sacré Cœur waaye Ousmane Sonko génn na indi ay tontu ci li nga xam ne moo nekk accusation yooyu ñu teg ci leen yenn tuuma moom nag muy xam ne du gulet ñu def ko lii ndax yàgg na ñu koy tuumal ci yu bëree bëree bëri moo tax lu ñëw rek moom da koy moom tamit euh, mu ngi dalal ñi nga xam ne ñoo nekk ay partisans ak ay mbokkam ne li ñu wax dara amu si te mu gisul plainte euh, dugguleet ñu teg mbir yi ci kaw ndondam ndax politique Sénégal moo demee noonu waaye lu ci am am daal mooy dinañ topp mbir mi te xam naa ne Ousmane Sonko du yàgg dina génnaat tamit wax euh, ginnaaw dañ ko teg yenn tuuma ci kawam waaye bu ñu jógee ci kaw Ousmane Sonko tamit démb gis nañ Sénégal dafa am loo xam ne naxar la waaye tiis bu métti métti dal suñ kaw ak ki nga xam ne mooy Serigne Moustapha Jamil si ibnu man Mansour si borom daara ji moom nag moo fi bàyyi ko démb ñu koy koy jaale umma islamique bi waaye di ko jaale xadratul di bi yëpp waaye di ko jaale Sénégal mu nekk tiis bu nag métti métti bi nga xam ne moo dal ci kaw Sénégal ak ginnaaw bu ñu moom aussi tamit gis nañ ki nga xam ne mooy Serigne Moustapha moom tamit wuyu ji mu nekk lu métti métti waaye ci biir loolu sax ki nga xam ne mooy Youssou ginnaaw dëj bi am ki nga xam ne moo nekkoon xaritam di frèram di Abdou Aziz Mbaye nekk mag ci Jibi Mbaye a organiser le 13 ndax nag li nga tax li lépp li ko waral rek mooy dëj bi nga xam ne jot na am nekk frère am nekk xaritam moo tax décidé na daal moo waa Super Étoile ñu reporté li nga xam ne moo nekk concert boobu noonu ba beneen yoon rek nag ki nga xam ne mooy Salma nekk benn dañuy dañuy daan dañuy ak cas bi nga xam ne nag gis nañ ne depuis barki démb wala altine ba tey ñu ngi koy waxtaanee mu nekk coow Youssou Ndour boobu noonu nga xam ne yenn tuuma yi nga xam ne Adama Gaye journaliste jotoon na ko teg ci nag ki nga xam ne moo nekk Salma nekk fa animatrice nekk en même temps journaliste ginnaaw ay information yu mu nga xam ne moo nekk euh, Adama Gaye ci page Facebook am mu jëloon ay tuuma teg ko ci yi noonu indi woon ko jox ñi nga ne ñooy nekk sénégalais ci émission Petit Déj boobu noonu di xam ne nag moom la jabaram jàpp nekkul kenn ku dul Youssou Ndour moom la moom moo am ak problème ak jabaram ci foofee sa cité kër góor gi mu nekkoon coow lu bëree bëri nag kenn ku nekk di ci indi xalaatam ginnaaw loolu gisoon nañ waa Walfadjri nag jugoon indi ah, indi ki nga xam ne moo nekk patron de presse bu nga xam ne moo ah, di Cheikh Niass woon ci leeral di jéggalu ah, Youssou Ndour ndax nee na Youssou Ndour monument la waaye tamit am na yoo xam ne waruñ ko di ko teg ci nodd Youssou Ndour ginnaaw boo amul yenn information yu leer waaye ki nga xam ne mooy Salma mbir bi nee moom deful lu gis information indi ko te am na source yu leer parce que Adama Gaye la ko jëlee moom nag liggéeyam lay def te émission bi noonu la parce que émission bi euh, nga xam ne mooy euh, baalu ak Youssou Ndour ndax liggéeyam rek nga xam ne mooy baalu wala génn sorti di jéegul ki nga xam ne mooy Youssou ne équipe Petit bi yëpp ñu ngi baalu ki nga xam ne mooy Youssou te ñoom yëguñu tiimu nit nekk na mbir bu ko méttee méttee métti euh, ami internet Dakar Live nag ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen jox dox daje ba beneen yoon fii ci baatu xol bi Dakar Live TV